janvier le 20 janvier 2020 directeur sécurité publique ñëwoon na fi def lancement opération sàmm suñu kaaraange 1 parce que dafa amoon ay xew-xew yu amoon fii ci Touba ak Mbacké ay actes de banditisme donc pour ñu jël euh, la sécurité des personnes euh, en charge mu ñëwoon def lancement boobu le 20 plan boobu nag un mois la duré woon tey la ñu toll ci njeexintal bu njëkk bi njeexintal bi moo tax ñu leen di jox résultat yi nii résultat yi nii la tëddee jàpp nañ junne yi nit ak yi nit ak fanweer ak juróom-ñeent su ñuy defee opération yëpp ci weer ci weer bi yëpp junniy nit ak fanweer ak juróom-ñeenti nit la ñu interpellé ñooñu juróom juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn nit pour vérification d'identité fukk ak juróom-ñett yi pour maanaam ñi yor si neebar yàmba ak xeet yi ak xeet yooyu ñaar fukki ak ñaari pour vagabondage ñi nga xam ne kenn xamuñ fu ñu dëkk ay vagabond lañ dañuy ñëw di squatter di nekk ci boru marché yi wala booru jumaa ji kenn xamul fu ñu dëkk kenn xamul fu ñu jógee juróom ñeent fukk ak ñaar pour ñi màndi di trëf ci mbedd bi fukk ak juróom ñett pour quinze waaw donc jàpp nañ fi ña nga xam ne tamit dañ doon sàcc ay ay ay ay ay ay ay ñu retrouvé ci ñoom juróom-ñeenti gàtt ci drogue bi jàpp nañ euh, juróom-ñeenti kilo ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom gramme ya nga xam ne ci si neebar lañ ko jàpp juróom fukk ak ñaar ci cornet ak 6 juin maanaam li ñuy ràbb noonu di ko tux 6 juin donc ci gàtt yi jur yi ñu euh, gis ci sàcc yi toll na ci juróom-ñetti euh, jur band yi ñi nga xam ne nag euh, moom la ñu démantelé maanaam ñi nga xam ne dañuy lëkkaloo di def ay naka su du noonu ci kër yi di sàcc ak yooyu Euh, demante nañ ci am nañ ci ñaari bande yu ñu ciy jàpp benn bande bi ay ay xale la yu yu toll ci ay fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent mais juróom-benn xale lañ ci jàpp ñi nga xam ne dañ leen jàppe association de malfaiteurs maanaam dañoo lëkkaloo di dugg ci kër yi di sàcc ay téléphone di sàcc ay écran plat ci attaque bi amoon tamit ci euh, Eltonu Mbàkke bi euh, ki nga xam ne moom nañ yaakaar ne moom mooy jiite woon bande bi Euh, mujjoon nañ ko teg loxo commissaire u Mbàkke euh, def na ci liggéey bu mucc ayib tegoon nañ ko loxo ba ci enquête bi sax gis nañ ne ci fan yi ci gannaaw bokkoon na ci ñu benn bande bu sàccoon benn oto ci biir Mbàkke foofu barkaat démb tamit commissaire wu mbind jàpp na ceeb yi nga xam ne setul maanaam impropre à la consommation lu tolloog ci 4 tonnes cent grammes moom la jàpp léegi enquête bi mu ngi wéy am na kuñ ci teg loxo suñ demee ci circulation routière jàpp nañ ci contre pièces yi ñi nga xam ne moom lañ jàpp toll na ci ñetti junne ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay pièces yu ñu jàpp oto yi nga xam ne euh, amuñu këyit wala nekkuñu ci yoon ñu té ñu téye leen ci commissariat bi toll na ci ñaar euh, ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent oto yi nga xam ne def nañ mise en fourrière moto yi jàpp nañ ci juróom benn téeméer ak fukk ak ñe ak juróom benn moto yi nga xam ne immobiliser nañ leen donc loolu mooy résultat yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu def ci weer bi maintenant pour li nga xam ne mooy moom la ñu dëgmal suñ kanam mooy perspective yi euh, jàpp nañ ne euh, opération sàmm suñ kaaraange bi am nañ ci am nañ ci satisfaction ba tax na dañuy directeur dafa ñëw tey pour lancer euh, deuxième phase bi buy commencer samedi ba le 20 avril donc ci ñaari weer lañ koy def